avez suivi toutes les péripéties du processus électoral. Aujourd'hui, après que nous ayons poursuivi nos stratégies de suivi, de gestion et de contrôle du processus, nous continuons à échanger avec vous et avec l'opinion sur les réalités du moment. notre mandataire, M. Détiefan, suivant son travail de vérification depuis hier, a entamé une dernière phase qui est prévue par le code électoral, c'est-à-dire la vérification des listes. Vous le savez, depuis deux jours, il y a deux, trois jours, nous avons déjà tous nos recours auprès du Conseil constitutionnel. Le mandataire de Kéfal s'était adressé à vous à ces occasions-là. Aujourd'hui, nous sommes dans une autre étape du processus électoral qui consiste pour chaque liste à aller vérifier la composition des autres Détiéfal a fait son travail toute la journée et voudrait partager avec vous ce qu'il a découvert. Donc je lui donne la parole pour qu'il vous expose ce a découvert dans la, au niveau de la situation des listes qui compétissent pour ces élections législatives. Merci. salle de président conférence régulière mais askan wi comme ni ñu ko waxee liggéey bi ñu yor jëm élection dafa am ay phase yu bare yàlla def na phase yu dépôt yi bare nañ ko mu am phase yu contrôle judiciaire yi am également phase yu saytu saytu boobu mën nga ko def ci sa liste comme mën nga ko def ci liste ñeneen ñi boo leen fàttalikoo ci élection locale yi am na benn jamono ñu waxoon mandataire yëpp yi nekk ci commune nanu dem ci préfecture yi ak sous préfecture yi pour mën a xool liste concurrent yi fa nekkoon surtout liste Benno Bokk Yaakaar dinañu fàttaliku loolu te loolu pour élection locale article 284 alinéa 5 moo ko wax mais ci élection yi di élection législative lu dafa am co disposition ñu may mandataire dem xool yeneen liste yi moo tax tey daanaka direction générale des élections la yendu ndaxte article 177 du code dernier alinéa dafa jox la possibilité mandataire bu ne nga dem xool ci liste yi fa nekk yépp ndax liste yooyu jaar noonu wala jaar yàlla def ñu def loolu bis yëpp ñu yendu fa xool liste Benno Bokk Yaakaar xool liste nationale am xool benn par benn tur yi ni mu tegloo ba ni mu jeexee ci titulaire yi def liggéey boobu ci suppléant lii nag ñuy wax ni am naa président Macky bu ko déggee fa lay pare Sénégal ndaxte ci listu Benno Bokk Yaakaar 43e position ci liste suppléant yi jigéen moo fa nekk 44e position ci liste nationale bi suppléant jigéen aussi moo fa nekk kon 43e jigéen la 44e jigéen la 43e bi ki fa nekk ñu ngi tudd Raphaël Ndaw né le 12 3 1965 44e bi ka fa nekk mi ngi tudd Maymuna Njaay le 8 11 1966 pourquoi ma lim leen ndaxte may wax bi mu amee yamuñu rek ci constaté que kumtoo ko noppi dañu woo commission bi ba ñoom ñëpp ñu ñëw toog Sénat toog commission bi toog direction générale des élections toog li nu gisee ñombe bi ma ni ñi nga xam ni ñoo nekkal Sénat nga xam ni lépp lu mu déposé dañ ci am copie ma di leen jox leen ma seen copie ma xool est-ce que seen copie méngoo na ak copie wu direction générale des élections mu jox ma bi ma joxee ñu teg ñaari copie yi ñoom ñëpp di gis parce que lu amul seede baaxul ñu gis ni effectivement li nekk ci copie direction générale des élections moo nekk ci copie Sénat ñaari jigéen yooyu ñoom ñoo toppante kon loolu je pense que lu ñuy tekki moo tax bi ñu pare ni le président de la commission comme li am na nan def PV de constat yàlla def na comme li ñu defoon ñu weng lim nga xam ne buggul woon def PV recevoir suñu dossier bi ñu ñëwee di yoon nangul ñu ko ndaxte lépp a leer ñoom ñëpp ñu wan leen ñu génne ba demandé ñu génne ci dossier wu Benno Bokk Yaakaar yi wu ñaari jigéen yi parce que li mu doon bañ mooy may mën a xëy na góor bi wala ñu ngi tey jii la xëyee góor bi moo tax avant sax ñuy dressé PV bi dama leen indi ba génne ñaari dossier wu ñaari jigéen yooyu teg ci taabal yi bi ma leen di wal liste bi ni mu toppante ma wan leen en même temps ñaari tur yooyu ku nekk seen référence boo tax nga gis ma am ko nii mu nangu kon ñu ngi wér na ñu ngi leer ci la defee PV bi dressé na bi mu defee PV bi ñu dressé ko ci kanamu Sénat kanamu représentant wu commission bi yëpp kanamu président wu commission bi mu déchargé def ci tampon waa signé ko kon na ñépp xam ni Benno Bokk Yaakaar liste bu dañ koy rejeté liste am kon amul liste nationale ci élection locale yi ci élection législative bi kon loolu la tey jii nii suñu liggéey bi nga xam ne moom la ñu doon def wane preuve décharge bi nga xam ni moom la ñu defal ci kanam képp ku fa nekk nga ni kenn du mën a tey jii jàllu si kon bu ñu résumé loolu à l'exercice permis par le code électoral comme ce fut le lors des élections locales en son article 284 alinéa 5 il était pour tous les mandataires dans les différentes collectivités de se rendre dans les préfectures et sous-préfectures pour vérifier les documents déposés, s'ils étaient conformes, et vérifier également si les listes donc déposées respectaient la parité et respectaient également toutes les conditions qui avaient été arrêtées au niveau de la norme. Pour les élections législatives, cette même disposition existe dans son article L177 dernier alinéa donne la possibilité à chaque mandataire de vérifier toutes les listes et les listes donc concurrentes. On s'est intéressé toute la journée sur la liste de Benno Bokk On s'est intéressé à cette liste-là. procédé à la vérification, on s'est rendu compte est sur la liste nationale à la 43e et 44e position, il y a deux femmes qui se suivent. J'ai donné tout à l'heure leur nom, c'est Rokhaya Ndaw et Maïmouna Ndiaye, la première à la 43e la deuxième à la 44e position. Et quand on s'est rendu compte de ce non de la parité, on a aller beaucoup plus en profondeur en interrogeant les responsables de la Sénat qui étaient présents. Nous avons demandé le copie qu'ils nous ont donné. Et on a fait la comparaison entre la copie reçue de la Direction générale des élections et celle provenant de la Sénat. Et effectivement, sur ces mêmes positions et sur ces différentes listes, y a deux femmes C'est pour cette raison que nous avons demandé devant toute l'Assemblée à ce qu'un PV de constat soit aujourd'hui dressé et qu'il nous fasse une décharge, ce que les membres de la Commission ont accepté, ce que le président de la Commission a accepté. Et nous avons tenu à revenir sur tout ce qu'on a vu et pour cette fois, différemment de l'autre jour, nous n'avons pas voulu prendre nos documents encore moins nous faire une décharge sur ce qu'on était venu déposer. Pour cette fois, comme c'était flagrant, et c'était une chose constatée par tous les membres qui étaient présents, il a accepté de nous dresser, de nous décharger le PV que nous avons dressé. Et vous avez ici la signature de la commission recaché également de la direction générale des élections atteste que la liste proportionnelle, donc liste nationale de Benno Bokuyaka ne respecte pas la parité et par conséquent, c'est une liste irrecevable. Ce qui veut dire que Benno Bokuyaka ne peut pas compétir, ne peut pas participer à ces élections parce que service est irrecevable. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, monsieur le président. Merci beaucoup. Je donne la parole au président Ousmane jërëjëf président Aliou Sanché mbokk yi asalaamaaleykum euh, ñu ngi nuyu ñëpp presse bi fi teew. leader yi ñu bokkal table bi euh, sénégalais yi ñuy seetaan ak ñu mu nekk di tàmbalee sama kàddu ci jaajëfal euh, suñu mandataire national monsieur Déthié Fall ndax liggéey bi métti na diis na te coow li bëri na attaques yi day jóge fu ne voyez, il a su garder le moral et le mental qu'il faut en tant que bon soldat pour continuer liggéey bi te dara perturbé wu ko ba tey mu dem mu war a def def ko nag avec ba yàlla wane ci lii mu ci wane lii nag mooy yeewi askan wi ku yaakaar ni mun nga atteindre Yewwi Askan Wi ci ay attaques ay complot ay manœuvre yoo xam ne day jógee fu ne nag nga foog foogewu defe naa da ngay nax sa bopp lii Cheikh Tidiane ñoom di wax ni ku xamul luy laytaayu Yewwi Askan Wi di nga lot ci ay pexe yoo ko nasaxale waaye boo moytu yow sa bopp yaay mujj suuf ci pexe yooyu Yewwi Askan Wi c'est d'abord un esprit te seetlu nag di dese adversaire yi adversaire yi fu ñu féete nag laa wax ndax bu leen foog ne adversaire yi ñu sori rek lañu mooy léegi xëy suba boo ngoon jot ba ngoon jot sos di xool mu ñu defee ne dañoo bëgg a féewale Khalifa Ababacar Sall ak Ousmane Sonko wala Déthié Fall ak Cheikh Tidiane Youm wala Ousmane Sonko ak suñu sëriñ Mass euh, euh, Mansour Sy Djamil yooyu ñun daf ñoo def reetaan waaye loolu mooy pexe bu jeex ci noonu dem nañu ba xam-xam amatul pexe amatul wër di sos suba ak ngoon moo leen dese waaye yeewi askan wi. ko lal ak li ko téye ku foog ni caaxaan dina ko fi dindi da nax sa bopp kon di dellu sant yàlla ñaar bi ñaareel bi mooy di ñaawlu di naqarlu taxawaayu ministère de l'intérieur le nouveau défenseur d'une certaine société civile ministère de l'intérieur lii dafa firndeel ni caaxaan nañ fi nekkee ndax koo xam ne nee nga def nga contrôle juridique ba jël liste Dakar ne dañoo tegle ay góor waaye sa contrôle juridique mayu la nga gis ni liste nationale benn benn bokk yaakaar dañoo tegle ay jigéen kon li mu firnde mooy liste benn bokk yaakaar kenn contrôlé wu ko ba pare ñu bëgg ñu jox ñu jël leen au sérieux ku fi critiquer administration. ñu ne waaw moom lii moom naa dafa bëgg a yee fitna foog ngeen ni lii jaadu la ñoom xanaa dañoo gumba léegi nu ñu mënee tiim liste ñaari jigéen ñu tegle leen quarante troisième ak quarante quatrième ñu ne gisuñu ko te acharné wu ci liste Dakar deux poids deux mesures yooyu nit ñi bëgg ñu continuer di ko nangu ci réew mi bu dul woon tey vigilance su Déthié Fall dem jël temps xool man bi ma wooyee wax ma ko moom ak Khalifa dama ko ne est-ce que yi du góor wala may mu la du góor ndax loolu mënu ne ndax loolu day am déedéet ah gis nañu ay góor yi yor jigéen turu jigéen mu ne ma xaaral maa ngi maa ngi jël dossier individuel yi pour vous dire que du parce que boobu ñoom xamuñu moom li mu doon li mu doon xool lan la mu ne xaaral may jox dossier mu jëlee dossier individuel ba jël référence xam nga bu ñu nee Roqee Ndaw fii fille de a Njaay fii dë kooku moom amatul lu ñuy lab la kon ñii sérieux wu dañuy tappale dañuy jël liste Benno Bokk Yaakaar jàllale ko d'office daal di acharné wu ci liste nag opposition di xool ban virgule moo mag moo tax keroog wax naa ko administration bokk na ci ñett yi ma leen keroog nekk suñu moytuwul ñooy tàmbali parce que nit ñi mënuñu continuer di subir comme ça. lu neex Macky Sall neex na leen amul loi amul règlement loolu du yomb ñetteel bi nag mooy lii lan la firnde li mu firnde mooy Benno Bokk Yaakaar yaakaaram tas na mënul am liste nationale suñu tataa Mimi borom xam-xam bi bëri ak tegal bu rafet waaye nag dafa ndax yàlla dafa ndax élection bu mu jublu moom day def xalam ba mbëkk suuf lay def tata mini doo campagne bàyyi bàyyi ba beneen loolu la fi def te gisuma lu mun a sauver on accélère on accélère ak mi ngi ñëw ak dara mënu koo sauver beneen élection la loolu moom dafay leer nañ ñi leen layal ñenn ci société bi nga xam ne dem nañ ci tere yi ne déedéet liste Dakar baaxul waaye liste Benno Bokk Yaakaar baax na te Sénégal nag politicien moom gën a sonn politicien moom ñëpp mën nañ ko critiquer waaye moom amul droit ku jóg ne politicien yi ku jóg dem ci télé bi ne man xam naa waaw politicien yi Benno Bokk kii Yewwi Askan Wi waroon def nii nangam nangam koo ci ne nag yow xoolal sa bopp mu yóbbu dëkk bi yëpp.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 dencee nenam bi muy génn foofu ñu ngi gis seen mandataire bi di daw si xëpp di dugg si xam naa ñoo ko wane ko njaaxum am na de gars am na lu ñu gis Benno Bokk bi bii ci liste nationale mënul am liste nationale 53 députés yi bàyyi bàyyi ba beneen doon na leer waaye nag ba léegi dàqul beneen bi mooy parrainage dañ ci am benn bu ëpp loolu yoon da cee wax mu leer jarul sax ñu yor jurisprudence moom parce que la loi n'est même pas interprétable xam nga fu loi leer kenn du interprété dañ ci am benn bu ëpp data bi mi wax na ko nee na dañ dañ leen bëggoon woon sax moo tax ñu yokk ci benn moom xam ne ni su doon loolu dañ ciy yokk téeméer wala junni waaye dañ ci yokk benn daf leen rëcc loolooy dëgg kon conseil constitutionnel liste nationale kenn waxatu ko l'ensemble des listes de Benno Bokk Yaakaar la ñu wax ils ont un parrain de plus ils ne peuvent lii nag mooy dëgg kon dafa am loo xam ne nag yéene la borom ci mujj suuf ñoom seen yéen lu ñu amoon jubal ko ci waxuma la rek yeewi askan waaye opposition bi yëpp ñoom ñoo ci mujj suuf sénégal yëpp nag la ñuy waxal réew mi ñun ñoo ko bokk réew pour mu dox il faut que li ñu tëral ni lii mooy charte bi ku mu war a appliqué wu ci yow mu appliqué ko moo xam Macky la tudd moo xam Khalifa Sall la tudd moo xam Sall euh, Sall bon moo xam Ousmane Sonko la tudd ku mu war a dal ci moom rek la dal ci moom mais suñu buggee jël loi bi di ko appliqué à géométrie variable nit ñi duñ ko nangu loolay andi ay fitna ci réew woo ñëpp nag kilifa yi keneen ak keneen lii lu leer nañ la du lu ñuy lamlame ce que j'ai dit en wolof c'est de commencer par féliciter notre mandataire national monsieur Déthié Fall président du PRP ces derniers jours n'ont pas été faciles les attaques sont venues de partout des critiques il a su tenir et surtout il a su garder son moral de soldat pour continuer le travail. Je vous le disais l'autre jour lors de mon point de presse en me qu'au moment où j'étais en de parler, Déthié Fall, Khalifa Sall, Aïda Mbodj euh, étaient avec les avocats de travailler à la rédaction des recours qu'on devait déposer au Conseil constitutionnel. Et c'est ça Yewwi Askan Wi. Parce que nous savons Pourquoi nous sommes ensemble Nous savons où nous voulons aller. Les difficultés ne manqueront pas. C'est ça l'œuvre humaine par essence. Mais en aucun cas ces difficultés ne casseront cette dynamique qui, est dynamique qui chemine, qui euh, concourt définitivement mettre un terme à une façon de gérer ce pays et à faire naître l'espoir auprès des Sénégalais. Et donc, félicitations de Diefal pour euh, le travail et surtout pour la vigilance. Parce qu'il a été très vigilant pour faire ce travail. La deuxième chose, c'est de dire, toujours dans, cette, dans ce prolongement, que Yéhu Askanui demeure cette flamme cette étincelle devenue une flamme qui a pu restaurer la confiance, l'espoir, l'espérance même auprès de beaucoup de Sénégalais à l'issue des élections locales. Et cette flamme va continuer à briller de plus belle. Elle va continuer à le faire avec l'ensemble de ses membres, avec l'ensemble des Sénégalais, parce que ce n'est pas une histoire de parti politique seulement. Il pas qu'on Ceux qui votent pour la, la, plus grande majorité, n'appartiennent à aucun parti politique. Ils s'identifient à un projet et d'une élection à une autre, cette identification à un projet peut changer. Et nous devons du respect à ces Sénégalais-là, quels que soient nos problèmes et nos contraintes. Et c'est parce que cette flamme est très forte et que nos adversaires, quelquefois même nos ennemis, n'ont plus de solution face à, cette, à ce rouleau compresseur que maintenant, depuis quelques jours, c'est la calomnie, c'est l'invention même, c'est le mensonge, excusez-moi du terme, puisqu'ils vont même jusqu'à fabriquer de faux messages WhatsApp, pensant pouvoir nous mettre les uns contre les autres. Il n'y a aucun nuage, même s'il y a des problèmes internes, il n'y a aucun nuage personnel entre les leaders et les il n'y a aucun problème personnel entre l'un ou l'autre des leaders ou des membres de Yewwi Askan les gens sont libres d'exprimer leur point de vue mais ça ne va pas au de cela ceci dit nous déplorons la légèreté pour ne pas dire la complicité de l'administration chargée des élections du ministre de l'Intérieur venant de lui, d'ailleurs, vient de nous surprendre, et vous le savez. C'est ce qu'il y a de pire dans ce qu'on peut faire comme ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diop. Et c'est pourquoi il est derrière service rendu à Macky Sall. C'est Parce que cette administration s'est acharnée sur la liste de Dakar, de Yehui Askanui, pendant que la loi nous permettait de faire encore des rectifications. Et cette même administration nous dit qu'elle n'a pas, qu'elle ne s'est pas rendue compte que Benno Bokyakar, à la 43e et la 44e place de sa liste de suppléants, sur la liste nationale, avait aligné deux femmes. Cela nous amène à nous poser la question de savoir est-ce qu'ils avaient même Regardez la liste de Benoît Yakar, Benoît Yakar. Et pourtant, ils l'ont validé. Là, ils ont rejeté notre liste de Dakar. Refusant ce qui est un délit d'administration. Et nous allons poursuivre cette administration. Refusant même aux mandataires la possibilité de déposer un courrier. Depuis quand l'administration refuse de prendre un courrier Ces gens ignorent-ils si, si, si, fondamentalement la, les, les procédures administratives Ce qu'ils ont accepté aujourd'hui C'est-à-dire, là où devait l'accepter plus facilement, ils l'ont refusé et aujourd'hui ils l'acceptent. Pourquoi cette administration continue à traiter l'opposition de cette manière Et quand les se relèvent, on dit euh, euh qu'on veut, qu créer dans le pays. Je l'ai dit l'autre jour, parmi les trois qui de mettre le feu dans ce pays, cette administration en fait partie. Il faut qu'ils arrêtent. la loi, elle est là pour tout le monde. Il faut que dans l'application de cette loi, qu'il fasse preuve, qu'il fasse montre de la même rigueur et de la même célérité entre tous les compétiteurs, ce qu'ils ne font pas pour le moment. Et enfin, dire que rien ni personne ne peut sauver cette liste de Bernard Rien ni personne. Personne ni rien même Tata Mimi Touré même les accélérations de Tata Mimi Touré qui ont produit la catastrophe qu'on connaît en 2014 d'ailleurs devant Khalifa Sall <laughs> c'est pourquoi Koutia disait on décélère on, on recule on même ces accélérations ne pourront sauver Benno Bokk Yakaar Benno Bokk Yakaar ne compétira pas sur la liste nationale Mimi Touré ne battra pas campagne elle qui prétend tout connaître au point de nous donner des leçons sur comment on doit faire une liste. Elle, sur sa liste nationale qu'elle est supposée présider, elle ne fera pas campagne elle a fait montre d'une incompétence que rien ne peut justifier. Et disons, ni une partie, je n'ai jamais généralisé, ni cette société civile, très incline à donner toujours raison au détriment de la loi à Benoît Ni le Conseil constitutionnel, je dis à ces sept juges-là, je n'ai jamais accepté de les appeler sages. Et j'assume. Nous leur disons le Sénégal ne leur appartient pas. Ils sont là pour la loi, et la loi, elle peut être lue tout le monde, particulièrement lorsqu'elle ne prête pas à interprétation. Il y a des dispositions, des normes qu'on n'interprète pas parce qu'elles sont limpides. Et celle-là en fait partie. Celle qui dit que si vous faites le nombre de parrains, c'est dans, dans, tel intervalle, elle est très claire et ce même conseil constitutionnel a l'a comme principe dans, une de ses décisions en 2017, en disant que le seul fait que Malik Dabo ait produit plus de parrains que demandé suffisait à invalider sa liste. Ça, c'est la jurisprudence. Je ne vois pas par quelle alchimie ces messieurs et viendront en 2022 nous dire que non, non, non, le, le fait que Benno plus de parrains que, permis leur permettra de, de la liste de Benno Bokoyaka. Voilà là où nous en nous demandons au peuple sénégalais d'abord. Nous, nous croyons au peuple. C'est le peuple qui est seul souverain. Maki pas hérité de ce pays. C'est le peuple qui le lui a confié. La souveraineté est l'exclusivité du peuple. après Dieu, certainement. Nous disons à ce peuple sénégalais, vous êtes les seuls garants de la stabilité, de la sécurité, mais surtout de la sincérité d'un processus électoral. Parce que c'est votre choix qui risque d'être compromis si on permet soit à la justice ou à l'administration de faire un de violer allègrement les dispositions légales et constitutionnelles pour pouvoir imposer cette maquillage. Nous disons également à toutes les autorités de ce pays, parce que ça, c'est pas compliqué à expliquer à qui que ce soit, que nous vivons des moments assez particuliers. Je le disais l'autre jour, nous sommes la deuxième phase de la ligne droite qui doit nous conduire au départ de Macky Sall dans 18 mois. C'est prêt à Dieu. Et cette deuxième phase, c'était ces élections législatives. Et Dieu est grand. Dieu est immense. Parce que Dieu a dit à Macky Sall, même si tu compétissais, tu allais perdre. Mais je ne veux même pas que tu compétisses. C'est ça que Dieu vient de te montrer. Donc, bye bye Macky la asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu euh, man dama yaakaar ne Déthié Fall tey dama ko ne gaynde de jaay la daan sant mais tey dama koy santale Fall. il est vrai que le président Ousmane Sonko boosté na parce que connaissant son franc-parler bi muy def conférence de presse xamuñu lu muy wax. waaye bi mu ne daf koy soutenir à 500 pour cent man maa ko fekk fii boobu mu nekk ak avocat yi ne ko on te soutient à 500 pour cent te il le mérite nelawul guddi nelawul bëccëg et lii c' est le gain de l' engagement de l' abnégation de la rigueur il faut surtout relever la rigueur avec laquelle il travaille et ce qui se passe aujourd'hui ça veut que quand on parle du parrainage, il y a eu bel et bien Parce que le parrainage, on n'a pas besoin d'évoquer quelque jurisprudence que ce soit. Le parrainage, c'est inscrit dans une fourchette. Quand on a quelque chose en deçà de tel nombre, tu n'es pas admis. Quand tu as un parrainage au-delà de tel nombre, on te retarde. Il a, elle a un je dis elle parce que c'est ma soeur. Et ce sont comme mandataires, les gens se demandent qui a fauté, mais c'est simple. C'est-à-dire, affectons la faute à la liste. La liste a dépassé le nombre de parrainages 55 327 et avec emphase, ils ont déclaré qu'on peut le faire, comme ce reconverti qui vient d'arriver dans l'islam et comme disait Saint Abdou Aziz Al-Ibn, a prié, disparaît deux heures en Siraka. en disant qu'il voulait se rattraper et en disant avec enfance que la bonne de la au bon Dieu. Ce n'est pas a tout simplement demandé quatre. Donc il ne pouvait pas donner six. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le monde alternatif, on nous l'a reproché. Et ça me faisait mal, vous pouvez imaginer ma douleur. Quand on a parlé de Yéhu Askanui, et on l'a on avait la possibilité, avant le contrôle juridique, de rectifier. C'était permis. Mais on n'a même pas voulu nous, nous concéder cette possibilité. Et les gens qui parlent, qui disent qu'ils ne sont pas politiques, effectivement, nous refusons cette faveur. Et on avait bien, bel et bien la possibilité de discuter. Maintenant, ce dysfonctionnement, c'est-à-dire le non-respect du mode alternatif, parce que c'est bien libellé, c'était trois conditionnalités. On a dit qu'il fallait respecter le mode alternatif dans la sur la parité, la loi On a bel dit qu'il fallait régler le problème de la conditionnalité pour l'acceptation des listes de candidatures. C'est-à-dire, on l'a libéré comme tel, toute liste qui respecterait pas la ne serait pas recevable. La troisième condition, c'est le problème de suppléance. À chaque fois qu'un homme démissionne, remplacé par un autre au moment où on exerce la fonction. Parce que les cas d'Aminata Tall et d'Aïdun Witch à l'Assemblée nationale, qui avaient quitté leur fonction de député pour aller au gouvernement, et on avait vu baisser le, le, de représentativité, de représentation des femmes l'Assemblée nationale. C'est pourquoi on avait euh, effectivement veillé à ces trois dispositions au moment de l'élaboration de la loi sur la PAC. Donc c'est survenu et là où il doit être effectivement davantage félicité, c'est sa vigilance, mais aussi les précautions, les précautions qu'il a eu à prendre. Parce qu'on pouvait nous, facilement nous donner un arrêté disant que oui, les 43e et 44e places par arrêté, alors que On ne sait pas que l'arrêté n'a pas de suprématie sur la loi constitutionnelle. Depuis quand l'arrêté à la... Parce que eux, eux, du de Bemba Bokoyaka, ils s'accrochent à l'arrêté du ministre concernant les parrainages. Leur, leur, leur, leur, leur, amis, je dois dire leurs amis, on les milliers de diables. ñooñu dañu ni arrêté bi ci loi au parrainage bi arrêté wu ministre mais loolu kay ñun avant ñun conseil constitutionnel moo waroon a xeex ak ñoom ndax conseil constitutionnel moo am loi loi loi loi loi euh, euh, loi constitutionnelle loi constitutionnelle bi def ni soo dépassé benn parrain loi liste bi day irrecevable day irrecevable mooy seen mandataire bi ñu koy woo dafa waroon a ñëw rek ñu ne ko jëlal say bagage sa liste dafa irrecevable waruñu ko sax may possibilité pour muy nekk di càmbar rek ñu naan benn doublon la fu ñoom fu ñu amee doublon te ñoo dëkk déposé donc aujourd'hui li nga xam ne moom la ñuy nawee Déthié Déthié ñu ngi lay gërëm véritablement ku liggéey ñu d'accord ñu dégg parce que nag wax dëgg yàlla man de amoon naa lu ma naqari trop trop ndax man defoon naa benn coalition ñu koy siggi problème ba mu defee fee itam problème mu borom la rek ak borom kooku yi. ñu ne lu waay sàcc na ko wane borom ko kori sàcc ko ko ñu ne ko borom kori la ko reetaan ndekete moom sàcc na buur gars yi gis nañ ko mais waxuñu ko daal mu reetaan ba sonn ñu daal di ñëw ni ki sàcc kóor yaa ngi nii moom la ñu war a wan na kóor yi donc borom ko koy amatul benn problème donc vigilance bi nga def mooy balaa ñuy jël benn arrêté ndax ñoom lu leen neex la ñuy defee arrêté yi yëpp na constitution conseil constitutionnel parce que ñoom ñoo xam ne ñoom ñooñu ñoo ndax conseil constitutionnel mënuñu ko reléguer au second plan ba arrêté wu ministre nga xam ne décret sax président de la république a koy jël mais arrêté boo xam ne ci ministère bi ñu ne arrêté boobu moom moo ëpp daraja euh, loi constitutionnelle loolu vraiment yabaat na la te ñoom bu ñu amee ku leen yëpp kooku moo leen yëpp moo leen kooku def arrêté bëgg ko def donc yaakaar naa ne lii dogalu suñu borom la nañ ko delloo ci yàlla parce di reetaan ne ndeke yow am nga loo toogaale day wane aussi par par lool day wane ne bu ñu gënee xasaat sax est-ce que ñu gisaat leen est-ce que yow doo parce que nag ñii contrôlé wu ñu seen liste ñoom dañu acharné wu rek ci liste liste opposition lu ñaaw opposition bi la lu bon opposition bi la lu correctul opposition bi la ñoom seen liste moo baax moo jaadu moo normal moo am farata amul bàkkaar maa ngi leen di gën di leen sant Merci beaucoup. Voilà, pour vous remercier et conclure, je donne la parole à Cheikh Diallo. nee na jàpp woon de. waaw ñu ngi leen di ñu ngi Aujourd'hui, il nous a encore fait preuve de sa ténacité, de sa pugnacité et de son endurance. Le processus, il l'a tenu de main de main. Pendant que la coalition Beno Bokiaka criait victoire, lui, s'est concentré sur la procédure, sur processus pour aller jusqu'au, pour faire son travail jusqu'au mandataire national. waaye man li ma bëgg wax sax ci côté boobu ah li ma bëgg wax ñaari mbir benn bi moom Ousmane wax na ko sax moo ci li nga xamante ne nii ñàkk sérieux bi ñàkk sérieux bi nga xamante ne nii moom la ñu relever ci liggéey bi ñu gis au niveau de la direction générale des wax na ko sax. lu mel ni waruñu woon xaar le mandataire national Déthié Fall dans le cadre de ses attributions mu dem di ko gis ñoom suñu defoon seen liggéey danañu ko gis et c'est simplement parce que defuñu seen liggéey Benno Bokk Yaakaar dañu andi seen liste ñu jël lépp teg de côté validé ko sans pour autant ñu xool ko acharné wu ci coalition Yewwi Askan Wi waaye dañu xamul ne yàlla ñëpp la fi nekkal te tooñ baaxul tooñ baaxul yàlla ñëpp la fi nekkal bu ñu nekkee di jubilé naan ñoom ils sont même pas capables de confectionner une liste en respectant la parité booba ñoom fàtte nañu la ñu def ci liste proportionnelle de groupe Benno Bokk fi sax pour justifier ñun li ñu def ne li ñu def expliqué nañ ko wax nañ ko waxaat ko duñ ci ñëwaat. waaye ñoom lii ñu def moo gën a yées te comme ni ko Ousmane waxee Déthié wax ko honorable Aïda wax ko Khalifa wax ko nekk na loo xamante ni mënatuñ ko dabaatal kooku il faut mu leer ci bopp yi yëpp mënatuñu ko dabaatal parce que contrôle bi def nañu ko ba pare et dès lors que bi def nañu ko ba pare mënatuñu régulariser dara Donc pour dire que au niveau national, la coalition Beno Bokyakar ne participera pa ne pourra pas compétir. Cette coalition n'aura pas de liste proportionnelle. ñoom dañu doon reetaan ne xamuñu dara danañoo dañ leen a may sept d'office waaye ñoom nag may nañu opposition bi yëpp cinquante trois députés d'office ngir seen ñàkk maanu seen ñàkk xam seen seen tooñ te Sénégalais yi liñ ci war a jàng moo ci lii ay signaux la yu wane ne Macky sàll mi ngi ci starting block pour dem jéem nañu def lu ne heure bu ñu defee lu ñuy def ba pare yàlla wan boppam ñëw nañ ci parrainage def erreur bu toll ni mu toll le ministre de l'intérieur il a voulu maquiller ce forfait mu génn benn arrêté fantôme yaakaar ni affaire bi dana ko réglé yàlla ne leen jàpp leen ne loo leen def suba mën naa ko dindi ci benn seconde booba xam naa ci seeni cupidité yàppoon nañ ni xëy na lii du feeñ moo daal li ñu bëgg wax Sénégal yi ne leen bu ñu nangu ñun de yeewi askan wi du ñu ko nangu mooy ñu reporter élection te fi ñu toll Macky Sall il va tout faire pour reporter élection yi su fekkee ne sa parrainage baaxul sa liste proportionnelle baaxul mooy maanaam doo doo doo participer ci élection te yow yaa ngi doon sàkku troisième mandat nga ne su ma demee élection locale su ma amee doole dinaa samp sama ndënd gën ko samp ñu dem ci élection locale ñu tëj ci la comme ni ko Khalifa di waxee dóor la dóor yu métti nga ne bon gagné nañ ñoom ñun ñoo gagné dinañ dem ci élection législative foofu nag dinañ leen wan ne ñoo leen mën faf sax doo participer ci yooyu élection donc loolu misaal la buy wan ne ñu ci fin de règne te maa ngi leen di fàttaliku Serigne Moustapha Sy dafa amoon lu mu ko waxoon ci Mawlid il y a trois ans ne leen Macky Sall mi ngi demandé troisième mandat waaye nag ko est-ce que dana ko wóor na ko sax ndax dina yegg di deuxième mandat. loolu nañ ci bàyyi xel deuxième mandat bi est-ce que Macky Sall dana ko yeggal il lui reste encore quelques un an et demi mais su participé wu ci élection législative mooy ni ñu koy waxee assemblée bu femme député naka ngeen mën a imaginer un président de la république qui n'a pas un seul député au niveau de l'assemblée nationale loolu lu mu mën a nekkee moo ci li ñu ko waxoon te ko góor gu tedd boobu waxoon ne ko nañu xaar sax ndax dina yeggali deuxième mandat bi ñu ngi nii deuxième mandat bi ah nañu xool moo tax Sénégalais yi dañ leen di wax ne leen Macky mu yor ñun ñoo ko ko li mu am ñoo boole suñu doole jox ko ko am na loo xamante ni dafay ko nangu li ñu ko joxoon moo di ko pasar pasare suñu souveraineté ñu jox ko. mu di ko def mu di ko téye ci nu ko neexee danañ ko nanguwaat te danañ ko nanguwaat de 2024 donc pour bañ a guddal na Sénégalais yëpp jóg taxaw te ñu ngi artu kilifa yi ñu ngi leen di wax ne leen Macky Sall depuis élection locale yi mi ngi dem taxani matt yooyu nga xam ne nii moo dara daal dëkk ñu koy gis nag kenn waxul jot na ñëpp jóg. jàkkaarloo ak moom ne ko trop c'est trop ne ko stop dëkk bii dafa fekk li fi nekk bu ñu nangu mu taal ko te nag bu ñu ko seetaanee dana ko taal parce que fi mu nekk nii dal redese ko te ki nga xam ne naan il est il est il est il est li muy def mooy lépp lu mu nekk ci loxoom dana ko utiliser loolu nag lañuy wax sénégalais yi. di ko wax suñu kilifa diine yi di ko wax si kilifa aada yi ne leen nañu jóg wax ak moom mu nangu ay njuumteel nangu njuumte njabootam nangu njuumte ñi mu àndal te jàpp ci yàlla loolu li doon yàlla nag ndax fii yàlla rek moo nekk les pexe yi mu mën di def yàlla suñu borom moo ko ëpp doole ndax xam ni jeexal na lii dëcc di wax waa baay baay bàyyi bàyyi boobu tey la gën a nekk d'actualité donc ngir bañ a guddal li am ba am moo di Macky Sall Benno Bokk Yaakaar seen coalition ne participeront pas à ces élections législatives ñu ngi leen di gërëm wasalaam merci beaucoup donc ci ma jox li am solo rek mooy que ni ñun ñëpp ñu jàppale bu ñu sant yàlla bu baax parce que tey yàlla moo ñu àttee ñun ak waa Benno Bokk Yaakaar xam nga Ousmane dafa fàttali léegi nan la nan la Yewwi représenté lan la wund lan moo ñu boole lan moo ñu soxal. lan moo ñu ñor lan lañu yéenee réew mi ak askan bi loolu dafa transcender suñuy personne ak suñuy taxawaay yëpp parce que askan bi lu koy jëriñ ak di ko defar amul njëkk moo tax ñuy tëje daal moom mooy dégg ngeen ni coow li bari na lool mais déggu leen benn leader yu yéen askan wi di épanché wu te noonu la ñuy liggéeyee nag dañuy jëfe mais duñu wax on va continuer le travail méthodiquement, méticuleusement pour assurer la victoire de Yewwi Askan Wi ak Wallu ci élection législative yi jëm moo ma bëgg ngeen jàpp ñaari yëf rek parce que li coow li bari bari ñaari yëf yooyu ñoo ñu soxal dëkk depuis le 8 mai benn bi daañu xeex pour que liste Dakar valide ñaareel bi. te yàlla mi ñuy defar daañu xeex pour que listu benn bokk yaakaar invalidé wu lii am tey li mu wund Déthié wax ko Ousmane wax ko mooy que ni ñoom la ñu bëggoon sottiwul parce bi ñu def wane na ni seen liste waruwul tax bokk ko Ousmane waxee kenn di ci dellu si c'est di du code de l'eau de roche su def nañ seen ni ñu notifié Dakar noonu la ñu waroon notifié euh, benn bokk yaakaar moo tax dama bëgg dalal xelu askan yi on ira jusqu'au bout yaakaar nañ ni suñu jógee fii te commission bi dana préparer lettre ñaari lettre yi jox ko ministre mu signé ko pour mu jox ko benn parce que loolu la ñuy yónnee ci Dakar notification décision bi suñ fi jógee parce que ñun ñoo leen def loolu defal seen ñoom bi ñu joxee notification Dakar loolu la ñu waroon notifier Benno par parloo boobu moo ñaaw moo jekkati parce que dama wax ne nag mënatuñ ko salfaane mënatuñ ko jàppale bi ci def ñu jëm conseil constitutionnel conseil constitutionnel déposé nañ fa ñu ñaari recours benn bi pour validation liste de Dakar bi ci des pour invalidation liste benn bokk yaakaar ngir parrainage looloo ñu soxal. daañ ci continuer résolument de manière déterminée sans wax sans coow ñu sant yàlla bu baax nag sant yàlla bu baax parce que lu dul dëgg du yàgg te xamoon ni ñun ak ñoom yàlla moo ñuy àtte maa xalifa xalifa No, no, no. Ça y est. Hein? c'est bon, c'est bon. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Dieng comment va yaa ngi